Ya yax ya, ak yax yàppay mu tok ma tok ku bëgg gëmal ku bëggul bu gëm mu ne ca pare ma naan ko ndax fi ndax fi ñu wara dajé ndax pare place fu ñu wara dajé daje la mu ne Cheikh jani nak dama tok ak momit mu ne ma am motax amna li na bu ndam joxe Cheikh mom Cheikh al Islam daf daan wax ne wa hadhihi tijaniyatu kulluha laa ilaha illa allah dalika fadlullahi yutihi man yashaau pourtant jafewut a gëm Burning Kip bi barki dem boo jaay Nigéria xanaa ñoom seetal nañ xam nga li xam nga li li xoromu Nigéria bëri na sax <laughs> gis ngeen fi sëriñ bi nekkoon noonu muqaddam bu ñëw day indiwale sonorisation microphone am maanaam sëriñ bi sax buy wax maanaam juróom-ñetti fukki junne nit ku nekk ngi wax ma ne ah ndaw lu yéeme ndaw lu yéeme kon ñu ngi sant yàlla bu baax yal yàlla defal jàmm saxaar yi ñu ngi lay ndokkeel baax ak ñi nga àndal waxuma macha allah jotaay bu yaatu bi ci zaahir waaye xoolal rek ka ann ala ruusihim mu mel ni ay picc nekk ci bopp nit ñi macha allah macha allah Cheikh maa waxoon ngodi ba ngodi ba gis naa fi yokkute boo xam ne waxuma yokkute moom xam na waxuma yokkute kii nag xam nga dafa am yokkute yu ñuy lijjanti. yokkute lijjanti dafa am. man yokkute dëgg xanaa yéen a amee euh, audio yi. yokkute dëgg laa fi gis. gis naa fi góor ñu dëgg rijaal loolu nag ku ñëw fi xam ne bëri na ay sàmbaanam ni ko monsieur le maire waxee rek àdduna organisation lañ nekk nekkatuñ ci vraiment yenn yi déedéet mosuñ cee nekk sax waaye nag fu nekk jot na àdduna bi fi mu toll yenn yi boo koy dégg wala di ko gis daal

ñetti programme am naa honneur bu rëy sant yàlla bu rëy ne wasifa bu mag wañ def ca Bamako mu ne Youssoufa Baram Seck ñëpp may dégg waxal Cheikh dem jiite wasifa yi buñ paree moom ma génn maa ngi sant bu baax alhamdulilah mooy jataay ba ma ko doon wax ngeen gis solo ma mbaxana ne ko waxal nañ bàyyi waaj yi mu wax ci bambara ben way ne ma dee ma ko ci na wax ci bambara ma ngi sant yalla bu baax alhamdulilah chalaaj sawam sax amna lu mu wax legi waye baye waxon na tax ma fakhran dal na taxtu shakiran cheikh bakkar ñang di doomi sayda roqiyat ñess dama wax lu ñewala Nigéria ci hôtel bu ñuy wax Top Ranks main building ci Ahmad Bello highway ci Gimbiya street ca sama chambre 217 mu ne ma Cheikh Ibrahim Cheikh Mahi nee na xanaa ma ne Cheikh Mahi nee lu ma lay wax dëgg la mu ne ma Cheikh Mahi nee nañu woo nañu nee liggéey leen ak Cheikh Ibrahima Ba ndaw la dégg na jamono moom moo ma ko wax ku fi jógee dama nga laaj Babacar ma ne alhamdulillah su ma ko doonul toon danaa ko doon mu ne sëriñ bi nii la ma ko waxee mu ne Cheikh Mahi wax na ma wax ju xam ne lan ma wax lay wax mu ne Cheikh Mahi nit la ko xam ne du tricher ci wax wax ji sax gis na ci man waaye moom noonu la ko waxee mu ne ma wax na ci yow lu wax ju xam ne moom sax du wax yenn yi lu ma daal nee na daal nañ la jegeel suñ bopp ñu liggéey ndax ndaxu nga te dégg nga sa jamono man alhamdulilah ma ñibbisi démb maag Aliou mi ñoo ànd ci doomam Cheikh Abdoulahi ci doomi Cheikh Mouhamadul Mahi ñoo bokkoon nekk fële mu ngi dox de pourtant wala téew ko rek sa ma dem mu ne ma ndax consulté nga page officielle bu xalifa bi muy Facebook page bi nga xam ne mooy page yu sëriñ bi ma ne ko gëj naa ci mu ne ma dugal ma dugg gis kayit gu sëriñ bi bind signé ko mais dama dee ci accident wax naa ko benn taalibe mu ne ma ñaanal ma man def sama tukki nettali naa ko damay damay dugg avion South Africa Soudan du Sud Tchad ñammee nangam nangam ma ne ko xaaral ma nettali la xisa ma nettali ko rek mu yóbbu ma ne ma baax na baax na baax na man dama dee ci accident avion kalla inna ma'iya rabbi sayahdi dafa jar a bàyyi xel nag moo tax fa awxayna ila Muusa xam ngeen keroog yonent yàlla Moussa lan la ñaanoon ibnu abi xaatim dafa jëlee ci abdullah ibnu salaam xam nga yàlla dafa am boo xam ne dafa dafa aw fa awxee naa ila Moussa an idrib mais an avant idrib jooju am na lu nekk ci diggante bi Baye Souley mooy wax mu ne diit bu yàgg te lay jam na ma dégg benn journaliste ci LBC Lebanese Broadcasting Corporation benn saoudien muy wax may déglu mu ne am na bés balaa may génn di ñëw studio mu ne sol naa juróom fukki yére bu ma sol ak summi ne bii rafetul ma ne ko loo ca tënkee ma ne ko du yére yee yow la ma ne ko ci yow la am na ko xam ne bu mu sol mu jekk waxon na Baye ñess nako yow maraakis ki ci bima gisee nga sol ko damaa dem jënd ci waaye sama bos melut ni sa boss mu bëgg ko ki ci ci tànk bi la ci borom la dëj am ñuy dem palé du ma tudd turam ku ñëw rek garé sa auto buntu palé Baye mu ñëw rek ba ci buntu palé ñu ubbi mu dugg jamono sa ngoor Baye rom ko mu taxaw mu ne taxaw ubbil mu ne ko diw duggal kilifa bu mag mu tourner du jott ci nak Ibrahima ak yow noo def ba sa oto dugg biir pare ma ne ko du yeewu sañ-sañ la sañ-sañ la xat xasanii bil ilmi wa taswiifi waa in qultu kun wa tasriifi in qultu kun yakun bila taswiifi waaye ak yaru lakin nii lu mu toog te lu topp ci te ak du mën ba ma meer faxtaara nii moo tax boo toogee di monté ba ma ko waxee waaja waaja maa ko lii ba ma ko waxee nii nii nii ana te mu ne yàlla jox na ma lépp waaye mu ne maa ngi toog dama am kersa dama am yar te ak du yàlla bi automatiquement faxtaara ñi ñëw yàlla yàlla dama demal nag jël lépp lépp jël ko moo tax bam na ko ak yeew ma ne ko déedéet ba faw ma ne ko loolu ëpp na yeew bu doon yeew rek ñu dugg mu ne Ibrahima mii ak yeew ñëpp gaare ci biir moom mu ñëw dugal waxtam foo jaar ba dugal sa kon fa aw xëy naa ilaa Musaa an idrib wax ju gudd ni ko bàyyi si lañ di waxee rek te du jam la boo mënee jam da ngay wax benn da ñëw tiil rek mu rek mu dal day wax benn baat it ëmb ci. an idrib jooju am na lu fa jaar Ibn Abi Hatim mu ne Moussa dafa taxaw ne. yaa man kaana qabla kulli shay'in. bind nga. wal mukawwinu li kulli shay'in bind nga. wal kaa'inu ba'da kulli shay'in bind nga. ij'al lii maxrajan la yonent yàlla Moussa ñaanoon keroog baxrul kalzam baxrul ahmar bind ko Idrit ji door a ñëw nag maanaam diit gi fett gi ni mu ko doon diitee moom laa yaa man kaana qabla kulli shay wal mukawwinu li kulli shay wal kaa'inu ba'da kulli shay'in ij'al li maxrajan bàyyi fett gi rek mu dem fan falaqa fa kaana kullu firqin ka tawdil azim wa azlafna thamma al-aaxirin waa an jay naa ñëw waaye loolu lépp inna maaya rabbi pas le président de la république pas le ministre pas le député pas le maire pas le pas le directeur pas xatta ni ko Cheikh yi di waxee sama bopp sama pexe yi déedéet déedéet du kii du bàyyi du bàyyi mu ne yàlla la yàlla la dégg ngeen waxam jooju من يوم صح افاسو افاسو ان معي ربي من انا وحنا سامبولومي داي ربي اسوسياسيون دي دي افاسو اليوم بره افاسو الكلب ان معي ربي سيهديني واجه سوبا مام بام نينكو واخال ان شاء الله من جارول كو <laughs> njëg gaa ngi nii sama poos daral gaa ngi nii mbaam yi ñu ngi jaay subaa fi jaar te njëg yi mat na mbaam yaa ngi ci marché bi te incha allah danaa ah, te dinaa dox bu subaa ñu ne ko wax incha allah mu ne ko ñu dem mu dellu si ko lu xew am na mbaam ma mu ne incha allah ñu ne ko lu xew mu ne sama xaalis bi lañ jël incha allah <laughs> ان المنبت لا اردا قطع ولا دهرا أبقى فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا إن شاء الله نقول يا مو هناك كون يونت يالا موسى لي لا وخون كرو ويتال يالا غيس بام نك لا ان ما يا ربي سيادين نكو يا من كان قبل كل شيء يوم يخرنا رجع يخرناكم طيب تبلغي وهو الآن على ما عليه كان والمكون لكل شيء لب لب لب في قبضتك والكائن بعد كل شيء ويتل يلا لب يونا اجعل لي مخرجا ku yegg foofu ku wéetal yàlla force énergie dellu ci yàlla wéetal yàlla nangul yàlla doyloo yàlla su boobaa bis bu ne naan fu mu jaar ku ko dimbale ku ko lebal bu ñëpp toogee ne dox dina dox kon kallaa kala gooyu nak jamono ju fala ma tara aljamaani day am ba ñaari mbolo yi jakarlo du fi joge ahlul haqq wa ahlul batil ñun deug ak ñooñ neen ma tara aljamaani du fi jeex motax bu gañi di def war na la nakati war na la metti war nga dox war nga wax pour mu mais nag xamal ne min sunanillah yàlla moo mooñee noonu ab addunaam ba bis pinc fa iza nufixa fi suuri fala ansaabu baynahum yawma idin wala yatasaaluuna wa jaa rabbuka wal malaku kalla iza dukkatil ardu bu yàlla dukkatee suuf si waa ji waa ji reer ca daara ja bu mu ne wa jaa yàlla ñëw ak la wal malaku ak malaaka yi safan safan mu ne dana saf saf <laughs> Malick fan xam nga ko rek waaw ma ne ko firim bi de xam naa ne safar safar de ñëpp sàpp lay firi waaye dëgg lañ di dana saf sàpp de <laughs> kallaa idaa dukkatil ard yàlla yi moo ne yow ma tubaddalul ardu xayral ard <laughs> kon mbir faw ahlul xaq ñooñ dëgg di am fu ñuy sukkandiku ba mën a def seen liggéey foog ñu am terrain bu ñuy wàcc pour mën a jouer leur match terrain boobu mooy lan mooy tere wu ahlul baatil mooy ñooñ baatil di wax di def nga am yow foo mën a taxaw ba mën a liggéey kon fa la maa tara aljamaani bu mu la yéem na la naqari nag na nga dox waaye du fi jógee xaala ashaabu Muusa inna la mudrakoon loolu rek di fi jógee dana am ñu xam ne dañ naan sonn nañ ñooñ Muusa daf ci am ñu xam ne du ñëpp dañ ne hee xaala ashaabu Muusa inna la mudrakoon tey moom yàqu nañ mbooloo moo demee dafa fekk ñooña ñooña nag yow mi jiitee faw nga xàmmee leen gis nga booy jiit da xool da ngay déglu da ngay bàyyi xel da ngay nangu da ngay bañ da ngay encouragé da ngay da ngay da parce que mbooloo moo dem dana am qaala asaabu Moussa inna la mudrakun hee tey moom yàqu nañ bu mu la découragé loo daayira bi doxut bu mu tax nga bàyyi gàmmu gi nii wala programme wala diw walla diw lim ma wax tey diw lim ma lim ma lim ma bu mu la découragé loo demal doxi sa yoon demal doxi sa yoon inna la mudrakuun sa biir mbooloo sax bu mu la découragé keneen waxi nopp qaala ashaabu Moussa inna la mudrakuun pare nañ waaye Moussa xam na ne am na yeneen généraux yu nekk ci biir comme mbokkam Haarun mu ngi ci biir mu'minu ali firawna mu ngi ci biir nan nañ dem mu ne kalla inna maaya waaye nag toujours ma ne ndekete njiit tamit kese bi ma leen di nettali rek fan laa ko mujj nettali xanaa xam ngeen ko daane naa ñëpp yaa ci des mu ne ko man mi la doon entraîné mu ne ko waaw mbëri yëpp daane naa leen may roi des arènes faw ma daanee la yow mi ma doon jàngal yow mi ma doon kii affaire bi gën a taar bi gën a mat dëgg la may roi des arènes daan naa mbëri yëpp mooy ko tey ngaa bañ a dugg man bëri wu du ma mbër man maa sa entraînement la doon jàngal mu ne ko pour mbir mi gën a rafet daal faw ñu ne même ka ko doon jàngal daane war a nokk ma ne ko te nga ci bañ a dugg ne ko mënta ñàkk par force mais fekk mu ne joxoon na ko ne ko koo léewaatool ba ngeen ba nga galgal ko rek nel da ba ko defee rek mu daanu ba bañ demee mu dëgër bopp sëriñ bi ne ko bismillah ñu roofoo galgal moom mbër mi mu ne da sëñ bi ne da di waa ji gi sëriñ bi ci kaw mu ne ko sëriñ ci daa nga emoon ak man mosoo àgg man ci bi mu ne ko tey laa doon xaar ma ne day baax njiit waaye ci yàlla lay wax nga am yóbbal nga am yóbbal day baax <laughs> day baax vraiment ni ma koy firee ci yonent bi sallallahu alayhi problème bu amee bi ñëpp tise mooy réglé naa ko dem leen toog foo jaar mu ne dem leen tëdd nelaw noo ko réglé mu ne dem pare naa réglé naa ko day baax na mais xam nga bu moom njiit li ñëwee taxaw mbooloo mi ne xé kilifa gi tey de affaire mu ne xé waaw tey de moom dana doy waar mais day garaaw mais moo si mënu dara sax ne non non problème waaye nag war nga am yoo xam ne moom koy denc wallaay xam ne bu ngeen seetlee armée bu ñuy dem xare da gis dañu yore pistolet yu gudd li ñu demee Mali maa ngi wax ma ne foofu laa gis nit ku dugal paaka xaw ma gendarme la ba fii ci ndajoor bi dañ faa dugal paaka paaka fii paaka ci he eh, yal nañu yàlla musal ci yal nañu yàlla may jàmm ma ne ñoom sax dañuy amee yu bëri bu bu jeex rek ñu jeex rek ma ne njiit njiit lay wax généralement day am ay ruq yu muy denc waaye fa yàlla moo tax may wax waxuma pexe àdduna day am ay recette ay compte yu muy bloqué denc bu ñu demee ba compte yëpp vide ba compte bi ko nit ñi xamal